jumaadal ula jumaadal sani rajab saaban ramadan sawal zulqadati zulhijjati léegi da ci am weer woo xam ne moo tudd safar moom la olof di wax diggi gàmmu bu ko génnee rek dañu dugg ci gàmmu boo nee tam xarit weer wi nga ci teg mooy diggi diggi woowu boo ko génnee yaa ngi ci gàmmu diggi woowu nag ci la sëriñ Touba ñaan yàlla li mu am lépp mooy sëriñ bi nuy bëgg a waxtaane Ahmadou Bamba la tudd Ahmadou Bamba nak lu bari Yalla mi ngi ko defal ci wéru safar dekk bi ko Yalla njëkk jox mu sanc ko Yalla ngi ko may ci wéru safar muy fukki fan ak juroom ñaar ci wéru safar gennam bi mu genn départ Yalla ngi ko may ci wéru safar muy ñaari genn benn bi mo nekk ñentelu fan bi ci wéru safar bi mu dogo ngir ni day genn ñaan Yalla pour génn mooy xarajtu yawma sabti rabia safar li khidmatil moxtaari fi sëgri safar loolu moy jug gim jugalon bopam te fekk amagul woon ndigal ndax jomam ak njàmbaaram ak fullaam ak pëcceefam ak dogoom bëgg yàllaam bëgg yonent bi jaraloon ko rek mu bëgg a jug xeex ak nooni lisla nooni lislaam yi ngir am ndam ci seen kaw indiwaat drapeau bi fii ci euh, adduna bi loolu la ci jublu woon waaye yàlla ne ko nag fas daa bi maa tuxmar wa aarid an musrikin moo tax mu xaar ba ittin safar muy door a génn am na benn kat bu ñuy wax sëriñ Moussa Ka ab waykat la woon bu mag ay olof la daan bind moo tax mu ni ñenenti fan ci aw safar na ñëpp jug waajal safar ngir bamba rabi'a safar la waaji ahmadul xadim loolu mooy sëñ Tuubaa quatrième jour ci weeru safar ñeenti fan la préparé woon génnam bi waaye lu ci mën a xew nga yëg ni kon weer wii di weeru safar dafa doon weer woo xam ni dafa am ku ñuy wax ahmadu bamba koo xam ne daf ci génnoon lislaam ñoroon ko mu génn ci ngir liggéey li yonent bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw bi mu bokkee fu baax ndax ci maam maaram la bokk ñaari yoon way juróom bu jigéen di sëtu maam maaram way juróom bu góor di sëtub maam maaram ñu bàyyi ko woon Fuuta ñëw fi installé wu dëkk bu ñuy wax Mbàkke Bawal ca senegal moom mu juddoo Mbàkke Bawal moom Serigne Touba ci at mu ñuy wax tuyel fu seebinti ci gàddaayu sayyiduna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi gàddaayee ba am junni at ak ñatt téeméer ak juróom-ñaar fukk ci la baam ba ñëw ci àdduna bi ci la juddu loolu mi ngi tolloog 1853 ci bi yonent yàlla Isaa juddoo ak tey nga xam ne bi yonent yàlla ngi saa Isaa juddoo ba am junni at ak juroom ñett témèr ak juroom fukk ak ñett ci la Ahmadu Bamba ñew ci jamono loolu mi ngi tollok wër wu ñuy wax Saabaan wëru baraxlu ci fukki fan ya ak juroom ci la Serigne Touba gané jamono bayam tuddu Serigne mam Mor Anta Sali Kan way juroom bu jigen muy li ñuy wax yaay mu tuddu mam Jaara Buso borom poroxan mamam ju góor tuddu mam Balla aïssa mamam bu jigen tuddu mam Astuwaala nawel ñaari mamam yu ko meññ tuddu mam mara mu gane jamono ñu tuddee ko ku ñuy wax Ahmadou Bamba Sall moo jàngaloon baayam di wëllëreem di léppam ñu jël ko jox ko baayam baayam jàngal ko alxuraan ba mu mokkal nu yëkkati joxaat ko ku ñuy wax tafsir Mbàkke Ndumbe mu toppalaat ko am mbindam ba mu agsi ki la tagi dan na asa dan naa adaa watan koko wacc liggéey ñu indi wat ko ci serigne Mbusoobe serigne Mbusoobe àggaleel ko xam-xamam ñu indi ko ci ko ñu wax khadima jaxate kala ngir mu jàngal ko arud ak bayan ak mantix ak yuni mel ligi ci nak yàlla solol ko ko bopam ila yaqad ilm al awliya wal anbiya yàlla solol ko bopam wax ko niko bay ay taqabbal al karim bi samanin laysa yarim wal yaqud ma arum ilman bila taallumi allamani al alim mimma yasaau min ulum wa zabba li bil kulum munsarifan bi safadi ahmadou bamba moomu nekk ci daaray baayam baayam université la yoroon di jàngal ay boroomi xam-xam di jàngal ay nit école am boobu ku nekk génne na ci schoolu baayam boobu ku ne génne na fa borom xam-xam bu ne génne na fa réew mu nekk nit jugee na fa daan ñëw ci moom baam ba nekk ci keppaaru baayam di jàng alxuraan di jàng xam-xam ba yàlla dogal mu doon géej koo xam ni war naa mën a toog tey di bindal boppam di taalifal boppam première téere bi mu njëkk a nga xam ne bokk na ci téere yooya ndax téere bi mu njëkk a taalif way ci sayduna muhammad mi ngi tudd as-Sindiidi moom la ñuy wax yàllaaku bil Mustafa Sindiidi yàllaaku wa bi xalilika ibrahima yàllaaku wa bi kalimika moussa saalihin xadirin wa bi soaybin wa ismaila yàllaaku ba xasida ga jeex waaye da ngay gis ni moom ahmadou bamba xaadimu rasul bi suñ borom dogalee itam moom sëñ Tuubaa mu toll ci war a bind ay téere ca la bind téere bu ñuy wax masaalikul jinaani du téere boo xam ni nda baaxuwuñu woon di gis ndaw lu koy bind tolli at yi mu am di ko bind loolu yombut waaye téere bu rëy la boo xam ne ba léegi dafa jaaxal naari yi jommal nasaraan si jommal adduna bépp muy téere boobu ñuy wax masalikul jinaani bokk na ci téere yi mu njëkk bind njëkk koo way muy téere boo xam ne bi mu ko bindee ñëpp ci la ko ñëpp xam ndax dañ ni ndaw lu toll nii naka la mën a bindee téere bu toll nii ba noppi nag sànni ci ay tarak ñi wër di wax ni ñoo moom adduna ñi wër di wax ni ñooy nit ñu weex ñi ñi wër di wax ni ñoo dese xam-xam bi xale wërta am xam-xam ci la commencé di wax ak ñoom wala yusuddannaka an qubuli kaw nii xasiral baay fii sal jiili walaa yusuddaka madal asmani an aksi kawni kaw nii min assudaani is akramal inda indallahi aksarukum taqwan bil istibaki falaysa yujabu sawadul jismi sawaqat al sawaakatal fataawasu alfahmi booba dañ ñoo xébon ñu ñul ñi ba jàpp nañu xam-xam dal am naara ko waram xam-xam dal bo degul arab bu roko am japon nañu alul aduna bo nekul tubab doko am Sering bi ñew nak ngir jëlañu ci complexe bobu mu indi téré bi wax ñu ni ragal yalla nekul ci nit ku weex ragal yalla nekul ci nit ku ñuul xam-xam du ko weex rek moko wara am a am taraangay adduna du ko weex rek moko wara am kon jambar ak farlu mo koy maye téré bi mu jëk talif bokku na ci téré bobu muy euh, Masaalikul jinan bind téré bu ñu wax bu qudus ta baba bayam mi ngi dundu muy téré boo xamni umul baraakin la woon mu wayat ko tuddé ko Mawaahibul qudus bind téere bu ñuy wax al jawharu nafis fii aqdi nasril akhdari rais téere boobu ku ñuy wax al akhdari yu moo ko bindoon mu gis ni téere al akhdari yu bii gàtt na tuuti na bari na njariñ kon na ko tëggaat def ko beneen téere boo xam ne day nekk woy wu neex a way mu jël téere boobu tuddee ko al jawharu nafis jawharu nafis boo demee da nga dégg mu ne xaalal faqiru ibnu habibi ahmadu rabbal wara hamda yudum ahmadu musalliyan alal faqiril haadi téere boobu ci dem ba dégg mu waxal la ni téere bii kat wayu ma ko ngir toppandoo ma ko ngir concurrence waaye dama ko way ngir mu neex a mokkal ndax ay way moo gën a neex a mokkal ci lu ay way te su ma ko defee ay way gone yi dañ koy wayantoo man koo mokkal kon dama ko bind ngir li kay yakuuna tuhfatan li kulli man araada xifzahu min abnaa i saman wa ay yakuuna raaxata siqaari wa man yi min alkabaari sammaytuhu bil jawhari nafisi fi aqdi nasril aqdar raisi wallahu rabbi asalul qabula wal awna wa tawfiqa wal wusula kon téere baa ngoog bokk na ci téere yim yim njëkk a way téere boobu mu tënk ko ci ñett al islaamu al imaanu al ihsaanu awalu ma awjabahu rahmaanu qat'an ala al mukallafi al imaani summata yus summata yus summata maarifatu maa yuslihu bih faraida al ayni jamian fantabih kon téere baa ngoog mu bokk ci téere yim njëkk a way te booba papaam muy baayam mi ngi dundu nga xam ne booba jamonoy ndaw la mu tegaat ca beneen téere bu ñuy wax tasawudu si xaar di téere bu ñu tuddee yóbbalu ndaw ñi am na mag mu ma a ñëw ci moom ndax téere bi téere xale yi la xale yi la ko tuddee woon pour xale yi jàng ci seen diine jàng ci seen adduna jàng ci nu ñuy doxee jàng ci nu ñu mën a jaamoo yàlla am na benn mag mu bee jaaw bu mas a ñëw ci moom na ko téere boobu ngay wax téere gone yi xanaa ñun mag ñi mënuñu koo jàng mu ne ko ah kay ndax mag mu weesoogu te def bàkkaar weesoogu te jàng sama téere bi kon mag muy fo ba tey rek mën ngaa jàng téere bi ndax boo ko jàngee bàyyi fo mag muy moy mën ngaa jàng téere boo ko jàngee bàyyi moy ndax téere bi li muy jariñ mooy mu dugal la ci diine jëla la ci réer yóbbu la ci xam jëla la ci suufe yóbbu la ci kawe jëla la ci lëndëm yóbbu la ci leer moom la tuddee tasawudu siqaari yóbbu la ndaw ñi gone gu dooru judd door raam rek am juróom-ñaar rek jëm kaw dañ laa war a jàngal téere boobu téere boobu lam ca wax mooy yaa ayu ko sibyaanu لا تستغلوا عن الهدى وبالعلوم استقلوا واستغلوا بالحفظ والتلاوة واجتنبوا مجالس السخاوة ولازموا من لا يسأل عابدا لربه إلى الهدى وخائدا فكل من بادر وقت الصغر إلى الهدى استراح وقت الكبر ومن تدارك الذي قد فات من اللغى وعمر الأوقات بتوبة النصوح والإقبال إلى الإله فاز بالكمال هكم نصيحتي لكم فتربحوا دنيا وأخرى ما قبل أفلغوا تيربا بلي wax moy yeen ndaw ñi yeen lay waxal man ahmadou bamba su ngeen bëggee lu baax na wut ak njub jub leen jub mooy lépp alxuraan léppam jub la alxuraan yàlla lim ci gën a bëgg jub la moo tax yàlla bi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jikkoom ya jikko ba mu ko njëkk a taggee mooy jub moo tax yéefar yi liñ koy bañ bañ bañ soppoon nañ ko ngir benn jikko muy jubam loo ko mas a dénk boo dikkee jotaat ci moom rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo ku ko mas a jox dara boo ñëwee na ko ko joxe woon noonu la koy delloo moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu ko mas a yaa ko ko wax ci ñaar la yem mos a kenn war ko parce que dafa jub moo tax sëñ Tuubaa tag ko ci jikko ji ni huwa allazi faqa siwa min al baraya bi huda hatta bada kat bu sama fi arsikal al muazzami wa fil jinan wa suquf wa fi wal kuhur wa birrimaa wa suyuq qala kull sanami huda lin na'im bi khairi zikrihi hakim bi rabbihi bàyyil qadim subhana man lam yanami kon sayyiduna muhammad djub gi lako yalla tagge taggee alxuraan day jang ca saru wunjik wa di nga xam fa lañu tambali ci suuf fatiha da nga nan alif lam mim zaalikal kitaabu lu ciy tege laa rayba fii ji hudan kon hudan jooju mooy lu ëppal yàlla lépp ci alquran mooy njub ñel na way ragalkatu yàlla yi jàngal suratul fatiha nga xam ne looy def te boole woo ko ci baaxut julli goy julli te fatiha bokku ci julli ga yàqu na julli goy julli te fatiha bokku ci julli yàqu na laa salaata eh, eh, eh, baadal fatiha wala xablal fatiha amul genn julli guy am te fatiha du ci am munta nekk munta ne jàngal fatiha boo ne alhamdulillahi rabbil alamin da ngay sant yàlla rek arrahmaani rahim yàlla moom ngay sant ba léegi mooy kii yërëm ñëpp ci àdduna yërëm ñëpp yowmal xiyaam maalik yow mi diin yàlla ngay sant ba léegi mooy buur buur bi nga xam ni mooy buur bis penc bi moomoom bis penc iyyaka na'budu iyyaka nasiin moom ngay waxal ba léegi yow la ñuy jaamu yow képp yow la ñuy dimbali léegi lan mooy objet bi nag ci saar bi mooy ihdina ihdina siraatal mustaqim loolu mooy wax ji laneen loo waxaat mooy alhamdu maa ngi cant lillahi yàlla rabbil alamina borom mindee fi arrahmani moo yërëm ñëpp ci àdduna arrahimi moo yërëm ñëpp yomal qiyam moo yërëm ko ko sob yomal qiyam koo kii maaliki moo moom yow mi diini bis penc ba iyaaka yow képp naabudu la ñuy jaamu wa iyaaka yow dong nasta'iinu la ñuy sàkkoo ndimbal léegi loo soxla ihdina yàlla nañ ñu gindi yàlla nañ ñu yóbbu fan yàlla nañ ñu jubale fan assiraatal mustaqima sa yoon wu jub wi yoon wi nga xam ni siraatal lazina an'amta alayhim yoon wu jub wi nga xam ne yaa ko xéewaleel ñu baax ñi yàlla ko fi jub moo la jubal yàlla ko fi baax moola baaxal yàlla nee woon na yonent bi jub ak jubanti kooku sa yoon newu ci yow munoo jubal munoo jubbanti wa innaka la tahdi ilaa siraatin mustaqim yow dañ laa jubal ba teg la ci aw yoon kon yàlla walakin allah ahbabta yàlla mooy xool ki ko soob mu jubal ko ah walakin allah yahdi man yashaa kon idna siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim waaye yoon woowa nag yàlla bu mu bokk yoonu yow yàlla yoon ñoonu ñi nga mere yàlla ku mu mere rek nga tàbbi ci yoonu bon wa yàlla buñ ca bokk waaye yàlla bu mu ci yoonu ñu réer ñi mooy gayril maghdubi alayhim waaye yàlla bu mu nekk wala daalin kon njub mooy njëkk moo tax sëñ Tuubaa ni yéen ndaw ñi su fekkee bëgg ngeen a baax na ngeen jub tege ci aw yoon ñu ne ko ak ban mu ne na ngeen sàkku xam-xam ndax nit ku nit góor gu amul xam wala soxna su amut xam-xam moog golo gu munta yéeg ñoo yam dañu la yuus mais doo mën a utiliser kenn xam-xam moo la yóbbu ci nga mën a pratiquer kenn du la nax kenn du la utiliser sa diina mën a jag sa àdduna mën a jag moo tax mu ne na ngeen wut ak njub wut xam-xam te góorgóorlu ci nafar te mën a mokkal waaye na ngeen moytu jataay yi texee di mooy garam place yi boîte yi place yu bon yi kolop yi fi nga xam ne boo fa toogee doo fa jële lu baax aw safaan nga fay jëlee mën na laa yàq àndandoo yu bon mën nañ laa yàq moo tax mu ne wàjta nii bu majaali sa saqaawa na ngeen moytandiku jataay boo xam ni doo fa dégg yàlla nee na doo fa dégg yonent ba nee na doo fa dégg mag ñu baax ngeen nee na nee ko moytu yéen xale yi ndax xale bu sànk looloo ko sànk am na xale buy tux fekkul baayam di tux fekkul ndayam di tux fekkul seen waa kër waaye ay xarit yuy tux la am xarit yooyu ñoo ko dugal ci tuxam boobee kon bu moytu woon jataay yooyee mbaa bu moytu xaritam boobu du ko def am na xarit buy naan wala kuy naan naan nga gisewu ko seen kër famille bi bokk kenn du ci naan waaye daa génn ci pénc moo xam ni ndaw ña muy àndal naan mooy seen métier kon faaw mu naan am na kuy sàcc koo xam ni amul mbokk muy sàcc waaye sàcc gi muy sàcc lu ko waral ay xarit yuy sàcc la am kon nag anil mar'i laa tasal wasal an yi qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yunsabu wan ma sa xarit ma wax la sa jikko Sëriñ Tuubaa ni kon moytu leen place yooyu ñu ne ko buñ ko moytoo ban place la ñuy jël mu ne wala zimo na ngeen dem ci place boo xam ni boo fa nekkee doo fa jugee doo fa jëlee lu dul jaamu yàlla jàkka ja boo fa nekkee doo fa dégg lu dul yàlla nee na daayira ba boo fa nekkee doo fa dégg lu dul yàlla nee na xadara ba boo fa nekkee doo fa dégg lu dul nee na ak bi borom xam-xam daara ja boo fa nekkee doo fa dégg lu yàlla nee na kon wala zimo man laay saalu xaabidaa li rabbihi ilaa hudaa xaa idaa sëñ Tuubaa ni daat ni Kep ku jël sak ndaw jox ko yalla so magge yalla téel sak ndaw ko gis mu ne ci trafic yi di yelwaa naka laaj dimbali ma sama dom mayma ma five dalasi mayma tan ma ten dalasi laaj ko ak ndawam ci lum ko def yalla ku ko jox sak ndaw mu téel la mag ba do soxla dara mo do ko jox sak ndaw da ngay noppalu bo nekké mag mu ne nak bo démé ba nek mag ta fo sa aduna adduna bul bul bul ko bul ne yalla dama yobbu sawara bul ne ko bon la dir nak yalla ko beur yeur la laa la na tu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru sunu bajami'a bul wax ni muk sama bon gi mom yalla duma ma jéggal déer yàlla day jéggale bàkkaar yëpp na nga dab dabaatal na nga bàyyi lu bon li nga doon def lépp donte ni mag nga nga ne yàlla maa ngi tuub tuub gu sell dootuma ko defati nga commencé def lu baax man naam bala ngaa faatu yàlla jéggal la sëñ Tuubaa wa man tadaaraka lazi qad faata min al laga wa amara al awqata nga tuub ko ci tuub gu sell bi taw ba nasuuki te nga fas yéenee jublu yàlla nag bañ koo defati ilal ilahi faasa bil kamaali sëñ Tubaa ne hëkkum jàpp leen lii ma leen wax nasihat yi sama laabiire gii lakkum ñeel leen yéen xale yi fatar ba xoo kon da ngeen boole ñaari ñaari tonaw mooy ñaari bénéfice dunya fii ci àdduna wa axuraa ak alaxira kon téere boobu mooy téere tasawdu sixaar bi mu koy bind ba baayam mi ngi ci kaw suuf di dund moo tax xale yi war nañoo góorgóorlu xam kan mooy Ahmadou Bamba négul ba bee jaaw commencé mel ni mel négul ba nekk mag commencé doon li mu doon bi muy xale la commencé def li muy def alxaaji malik si nee na ko saada tef lan lay sa fii asrihi man yu salli bi sabat ahwaamin sëñ tubaa ci juróom-ñaari atam la daan rang ca mbedd ma la daan taxaw ca pénc ma la daan fanaanee xoole ba bësset négul ba doon mag door a mel ni mel yaa xayra maahi mahajunaahi mahal misaahi waxta si bàyyi kon xale yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mu taalif téere bu ñuy wax tasawdu subaan te booba pap bam mi ngi fii ci kaw suuf di dund téere boobu boo demee day wax ni yéen xale yi su ngeen ragalee gàcce na ngeen jiital xam-xam ci liggéey gone guy jàng métier te amoo xam-xam da ngay neex utiliser te doo am dara kon xale yi ñoom itam nañ bàyyi xel ci ni balaa ñoo jàng métier nan jàngi xam-xam ba noppi xam-xam bu jiitoo ci yow métier boo bëgg dugal sa bopp bi danga ko dugal sa bopp moo tax mu ne yaa maxsara subbaani in xiftum xajal fa qaddimu taalluman ala amal fa qaddimu la qaida sunniya mujarradatin an firan wa mirya mu bokk ci téere boobu am beneen téere bu mu bindaat booba papaam mi ngi dund mooy téere bu ñuy wax nëx ju xadaa il xaaji téere ba pour éducation la pour yar xale bi ni muy nekk ak papaam ci kër gi ni muy nekk yaayam ci kër gi ni muy nekk ak frère am yi na muy nekk ak cousine yi ni muy nekk ak waa mi ni muy nekk ak waa bi ni muy nekkee ci ba téere boobu la tëgg tuddee ko nax ju xadaa il xaaj yi kon loolu ci ndawam la ko def kon loolu jeunesse bi war nañ koo rey loolu lañ amoon ci lu ñu dikkoon pour laaye biire leen ko ci télé bi ndax bu ñu toppee Ahmadou Bamba rek moo julli woon ci géej gi moo defoon karaama moo tontu woon biro ndar naam baax na ñu fàttaliku nit ñi waaye loolu moom la moom moo ko defoon moom ngir yàlla jaraloon ko ko ak yonent bi mu am ca lam ca am ñun lan la ñu war a roy ci moom mooy jikko ya lan la ñu war a roy ci moom jëf ya lan la ñu roy ci moom li mu defal yàlla am li mu am ñun naka la ñuy def ba am ko parce que itam bu nu jàpp ni xéewal yàlla yi dafay jug jugu fi may yàlla yi jugu fi yàlla mi ko doon joxe ba tey mi ngi fi alxayu la alqayuumu la yàlla mooy aji dund ji yàlla mooy aji des gi kon ku góor góorgóorloo ko tuut yàlla jàppale la kon nañu roy jikko yi sang bu tedd ba Serigne Touba ndax moom kat jikko yi rafet rek la yor melow kaw yàgg melaw biiram dëppoo nañ du diglu lu bon du digle lu lu boromam kon sëñ Touba moo nekk noonu neex a waxtaane neex a joobee ndax moom foo dugg ci moom rek waxtaan la tey facette bii laa génnee ci moom teyit bu ma ñëwoon suba man damaa waxtaan ci moom ci beneen côté kon bu ko defee dañuy ñëwaat jox sëñ maam Thierno moom it mu yëkkatiwaat xasida ba ci tuuti su dee jar na nu yëkkatiwaat baax na su fekkee dañuy tàggatoo itam euh, lii rek doy na émission wasalaamaaleykum wa rahmatullah euh, jërëjëf sëñ maam Cheikh waxtaan wi neex na lool àdduna ak Pastef itam xam naa kon ñu jël xasida gi rek koy ñaane bu ko defee bu noppee ñu tàggatoo nuyu bokk yeeg am ni jàmm yi ba beneen yoon incha allahu rabbi bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسرانا جمسسنا جمسسنا بسرانا كتب الله تبارك وتعالى أن هاتين قصيدتين كتبتا على سقي العرش والكرسي والله يختص برحمته من يساء والله ذو الفضل العظيم والله على ما نقول وقيل مقام ذي الجلال والإكرام سفح حياتي مخلدا الإكرام مقام ذي الجلال والإكرام سفح حياتي مخلدا لكرامي سكر كل الله سكرا يرخى للعرش والكرسي نعم المرخى رافخا الأمين والأمين وللجيران قادني تامين أبقى إله الله ما لي أبقى من المنى وليقعد سبقا نفعني نفخا يديم خربي وخاد ليل فوق المنى في تربي إذا كتبت أو قرأت قادا لي البديه فضله فانخادا جزاء ذو العرش العظيم والجزاء خير الورى لي خاد وحدا جزاء ملكا الجميل حام جمسس ما وحد الجليل حام جيسس سقى لي المغني سقاء قد محا عني ما لم يردع لي فمها sahihitu bayniya wa bayna allahi siran yusidu niya hubbullahi najani allahu bima lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini ikramu zil jalali wal ikrami sanat janabi mubqiyal ikrami إكرام ذي الجلال والإكرام سار الجنابي مبقيا إكرامي كتب الله تبارك وتعالى أن هاتين خسدتين حفظتهما حملة العرس واهتز بهما العرس العظيم مع تسبيح جميع الملائكة والله ولا ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربي بما يسر الأسخان قد فجأ بجاه أفضل من لله قد لجأ حمدي لرب كريم لا شريك له وسدر اليوم نورا ساتحا ملأ محمد صلوات الله في عبد عليه في حسبه كل به كلا أنه إله الذي حمد مواهبه لجملة الخلق ما يختار من براء ناجته جل أخواما وكرمني تكريم هاد وكن لي من لغن بريئا رحمن هب لي جميع خلق رحمة من يغني عني سرما قرآنه قرأ خطمة المصطفى عن كل مفسدة والترى من خلقيا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا هاديا ردأ ما أوتا ما خدناها وقلب من ضرر بجاه أفضل من لله قد لجاء آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi يين يين ne yéen سيتان في ñu نيمانا سير تي في ñu ngi leen di jaajëfal fu waaye nekk ci àdduna bi yëpp di nuyu suñu soppe yi suñu am di jàmm yi suñu wëllëre yi nga xam ne àdduna wërngal képp lañ nekk di bëgg sëriñ maam na Mboup ak suñ maam Cheikh Faye soldaar sëriñ Touba lii mooy liñ leen andiloon tey jii ci Nema Nazir TV yàlla dogal na sëriñ Ousseynou Diop la ñu waroon a bokkal programme bi waaye kilifa gu mag gi nekk ci dëkk bi moo ko yónni mission wax dëgg yàlla moo tax ñu taxawoo ko ci taxawaay bi amoon nañu yéene moo gën a yaatu nii waaye nag li wolof di wax naan lu neex du doy dañ koy dagg fii ndax lii lañu waxtu bi mayoon ci ay eh, lii lañu cërale woon ci waxtu kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di jaajëfal ñëpp fu nekk rek di leen wax jërë ngeen jëf di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxal Bachir suñu borom yàggal ko fi lool suñu am di Modou Mbène Fall suñu borom yàgg suñu borom yàggal ko fi te wéral ko sëñ Moustapha May xalifa borom daal lu maxtu suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko kon suñ maam se ñu jox la nga tàggoo incha allahu rabbi ba beneen yoon jërë ngeen jërëjëf yi maam Thierno taarkal la wax dëgg yàlla émission bi neex na euh, ni ñu ko bëggee woon amee nañ ko nu kawe suñu njortu dëgg la sonn nga lool fan yi yaa ngi jaabante ki télé yi ak rajo yi tey jii rek ci euh, gàmmu gu mag ci nga jugee euh, fii ci Amat Ba Johnson noppalu woo sax daal di ñëw wuy si woote Ousseynou bu baax mi nga xam ni lislaam rek moo ko ñor Ousseynou lu baax rek moo ko ñor lu baax rek la bëgg lu baax lay xeeñtu guddeeg bëccëg suba ngoon kon sëñ Ousseynou noo ngi koy ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram ak mbokki technicien bi yi mu àndal caméraman yu jàmbaar yi wax dëgg yàlla noo ngi leen di ñaanal yéen itam yàlla def leen ay magi lislaam li ngeen bëgg lépp yàlla defal leen ko ay jàmbaari lislaam ngeen lu baax rek moo leen ñor bég nañ lool wax dëgg yàlla ci taxawaay bi bég lool ki sëñ Ousseynou njaboot geeg ñi mu àndal liggéey bi ñëpp mbokki équipe technique bi yëpp noo ngi leen di nuyu bu baax itam ñu ñuy seetaan di ànd ak ñun programme bi ak fu ñu mën a nekk di ñu bàyyi xel noo ngi leen di ñaanal gudd fan di leen ñaanal wér barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaaji maam Cerno dégg nañ loolu ni nga ko waxee rek euh, sëñ Ousseynou moo waroon nekk modérateur bi moo waroon nekk présentateur bi moo waroon a nekk ki ñuy guider ñu ñaar ñëpp ma waxtaan nga jàng waaye li ñuy wax ni ñu bokk benn teen ñooy la xasooy goj comme lii suñu métier la tam man nañ ko te moom mi ngi jàpp te lim nekk ndigal la ñun ñu teew fi rek defal ko ko defale ko ko ni mu ko bëggee donte ni sax niñ ko bëggee woon dëgg-dëgg amewuñ ko ni waaye nag ñu góorgóorlu rek ngir xolam mën a sedd xelam man a dal kon mi ngi noonu ñoo ngi leen di jox nag rendez-vous bu dul dakk ndax fii suñu kër la fii suñu daara la fii sunu ëtt la kon yéen ñi ñuy seetaan na ngeen xam ni gisoon ngeen ñu fi da gisaat ngeen ñu fi te it da ngeen ñu fi gisaat fii danañ fi bari ay tànk lool ndax suñu ëttu maam la sunu kër la sunu teele la incha allah ñu ak yéen ñoo koy ànd di leen gunge guddeeg bëccëg suba ngoon ci kàttanu yàlla kon su ko defee nu tàggu leen ba beneen yoon ci kàttanu yàlla wasalaamualeykum wa rahmatullah